fi boo fi waree beneen dëkk dinañ leen loolu amu fa. suñu làmb lañ koy ubbee mu daal di ñëw ak ñun Lamine ci combat bi dox ci diggante Eumeu Sène ak Lac de Guiers numéro hmm. mu nekk combat boo xamante nii. Lac de Guiers de bëgg yëpp moom mooy jàpp Eumeu Sène daal di koy daan. ñuy laajte nag ndax du compliqué ci Eumeu Sène. moo tax mu ne jàpp ne journal bi ñëw def titre Eumeu Sène ko daf ko def bind mu rouge sax rouge la ko def rouge nag foo ko gis danger la Eumeu seen ak ak ak ak Lac de Guiers numéro ku ci nekk xam na ni bëri nañ ñaari yoon comme ni ci journal sunu làmb ñëwaatee rek ci xalima ki nga xamante ni moom mooy Abdoulaye Dembélé mu mel ni ni mu ñu ko fàttelee rek première combat bi mi ngi nekkoon vingt 28 février 2020 combat boobu nag ku ne xam na ne combat bu métti woon na métti woon na trop trop trop trop neexoon na lool lool lool ñaari mbër joxe ci ba ku ci ba ci ki nga xamante ne mooy Moustapha Gueye keroog ba mu yuuxu ci plateau bi yaakaar naa ne kenn fàttewu ko lii mooy combat. loolu la waxoon ndax njàmbaar gi nga xamante ne Eumeu Sène wane woon na ko njàmbaar gi nga xamante ne Lac de Guiers numéro 2 wane woon na ko ñu bëre bañ tàqali leen kenn jéppiwu leen moo tax Gaston nag yàggul dara ba ñu bëree 2010 2012 da leen a boolewaat waaye nag ci combat bu gaaw Eumeu seen am ndam moo tax mu ni troisième combat bi ndax Eumeu Sène jëmul ci combat bu compliqué wala boobu moom dafa jàpp ne Eumeu Sène ci combat bu compliqué compliqué la jëm. ah la boo xamante ne ni Lac de Guiers numéro 2 ko bëgg a tëgg moom. combat la boo xamante ni compliqué ci Eumeu Sène waaye compliqué na tamit Omar Diop ci ki nga xamante moom mooy Lac de parce que tamit mbër mënu leen a bëree ba pare ngeen nul ba pare nag boo xool. njàmbaar ga wane nga ko waaye moom tamit wane woon na njàmbaar ci premier combat bi deuxième combat bi mu daan la yaakaar naa ne kon troisième combat bi pour man moom sax moo war a gën a nekk à l'aise waaye nag bu ki nga xamante ne moom mooy waaw waaw waaye ak lu mën a xew daal compliqué na ci Eumeu Sène waaye dina compliqué tamit ci ki ki nga xamante ne moom mooy Lac de Guiers numéro ndax ku ci nekk da war a des ci cercle VIP yi. waaw ku ci daanu rek ñoom ñaar xale yi dañu lay daal di sës rëkk te buñ la sësee comme ni ñu koy waxee rek dañu lay rëkk.